kalaaf bu Ndiaye bokk 10 combats macha allah di ndaanaan moom Ndiaye nekk Ikri Bawal Ikri Bawal mbooloo di rakk ci Tafatine macha allah Ndiaye def 10 combats am 9 victoire am benn défaite ci kalaaf bi la bokk waaye mbokk yi kan la ciy dajeel moom tamit xamaguñ ndax tirage amagul caatu yaraax moom tamit am li nga xamante bi ni mooy 11 combats am ci li nga xamante bi ni mooy 9 victoire 2 défaites. deux défaites yi nag ak réeroo am na ci parce que Boy Joson daan ko Mame Balla top cinq daan na ko moo Bulldozer ca làmb ja moo amoon ndam Bulldozer def recours ñu maintenir victoire u Caatu Yaraax mu def appel ne jox nañ ko victoire loolu lañ ci mujjee am comme information beneen bi ci topp Gamou Gueye numéro 2 def 14 combats di champion di ndaanaan moom tamit am li nga xamante bi nii mooy euh, onze victoire am li nga xam ne mooy 3 défaites salut général daan ko moo ja daan ko xale bi nga xamante bi nii tamit ah macha allah mooy soq daan ko keneen ki ci topp muy caatu yoof moom tamit ak réeroo am na ci digganteem ak Pape Thiam ci recours caatu yoof moom tamit am li nga xamante bi mooy di set combats am ci deux défaites macha allah lépp di ay victoire lool mooy kalaaf yi mbokk yi waa mi ak waa bitim réew kalaaf yi daa yàgg def yëpp gis ngeen ko tagewul ci ñun dañ ko doon def promoteurs yi di ko démarché muy tagge ci mbër yi nag tey nag yàlla suturaal nañu ba am na benn bu taxaw am na beneen buy taxaw poul A la poule B ci Gaston Production xalil topp ma ñu dugg ci biir bu ko defee. boo ak caatu Bargny xam boo booy bi nekkoon école boo booy Bargny bi nekkoon école de lutte booy ñaa boobu bulldozer moo ko jëloon. kon laat moom su ma dugalaatee fii ci kalaafit damay gëm ne sama njiglaay la et puis moom sama waay la. xam naa li ma yor nag. yow sax sa bopp boo doon teg xam nga ni ci caatu yow ngay teg. yéen waay tournoi bi kay bul sonn damay bañ a wax gars yi di delluwaat avance su ma tax su ma ci soree xam naa dañuy dellu avance. Hmm. ma ko ñu wax ak ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Abdou Lahad. Ndoye Ndoye lépp que noa de mën naa wax man lu ko teree wax nag laa. ay eh, Ndoye. Eh, Gaston Gaston ñoo mën a fay. lii de mosuma koo gis ci gone yi maa bu baax a baax waaw kon la ñu ñu ngi lay fay. Ah. bon du nuyu du nuyu làmb yëpp. Ah, xam naa ne tey mooy il faut force wax. Ah. ah mais lii itam peut-être euh, dañ koy rafetlu rek. di encourager suñu frère euh, Makan du ko ñaanal mu dugg si mbir mi bisimilah rahmaani rahiim génn si alhamdulilah rabbil alamin mm-hmm. ah maa ngi dégg itam léegi itam la euh, mataa mataa di sànni ay ay kii. nañ bàyyi ba ba ba yegg fa rek xam nga man deux ans yi nii caatu Yaraax bëggoon bëri caatu Yoof mu dul sotti njaay tin la même chose yaakaar naa peut-être comme que CLAF moo lañu boole. ah jarul jarul jarul buuxante nañ bàyyi ba jour ba rek. yóbbu ma gal la. waaw na ma leer na leer na ma bu jour CLAF moom sa booy bi moo moo moo fay génn premier moom loolu lu ma leer la. jaatu yaraax jaatu yaraax moom si boobu. beneen poul bi. beneen premier maa maa génn foofu xam nga foofu du du génn foofu. kooku njarul wenn de sa. Sané ak ñoom ko seq. maa ngi finaalu ñaar yëpp. Eh, eh. loolu dina garaaw loolu leer la. ko fekkee tatal ko Cheikh Abdoulaye. borom belal maa ngi lay nuyu baax a maa ngi lay fay di nuyu presse bi di la nuyu di nuyu Modou Anta di nuyu ñi ma toogal ñëpp waaye avant tout nag ñu ñaanal sunu nijaay sunu baay. Mm-hmm. Gaston Mbengue yàlla may ko gudd fan gu ak wér. ndax wéram ñor nañu lool waaye nag yàlla na ko sunu borom defal di wax sénégalais yi seen ñaan ci Gaston mi ngi ñëw. Mm-hmm. mi ngi am tan mi ngi féex bu baax kon di santaat sénégalais yi rek nu gën koo yokkale ñaan waaye nag continuité dafa am boo àndeek sa nawle sa xarit muy nit ku am ambition di nit ku am jom te amoon na lay amoon na fu mu mën a jaar structure mënoon na xaar parce li may wax ni nit bu su dëndam yaatoo rek ngeen ànd mu am lu mu bëgg mën a def lu bari loolu nag Makan Mbengue laa koy adressé sunu xarit la sunu am di jàmm la bi papaam di tëdd bari na lu mu fa fekk te ñoo ñëpp amoon na lay ku ci nekk force majeure mënoon na am waaye terewul ci courage ci jom ak ngor ba ñu jóge ci loolu lépp ñu dellusiwaat ñu bëri yaakaar ne peut-être war na mën a xaar mu ne ak ah, continuité la damay continuer moo waral mu am ambition bii bëggoon nañ ko def depuis daaw ne lii lu waroon am daaw la mais yàlla sunu borom dogal mu ñëw ni la fi ñëwoon 2006 les meilleurs espoirs de la lutte bu ñu ne les meilleurs nag tànn ñëpp kenn mënu ko waaye ñi nga xamante ni ràññeeku nañ seen biir morom ñu fexee def lu tuuba dajale leen ñuy crème làmb ëllëg ñu war a mën a téye làmb loolu nag moo waral tey ji ñu andi leen Claf ci compte Garçon production du ni gulet ci la Balla Gaye numéro 2 génnee ci la Lac de Guiers ci la Modou Lo ci la Bac Saras nekkoon ñoom Zos Moustapha Tine mm-hmm. ku lim dañ naan xawma da nga dul àggal ña fa jaar tey Balla Diouf booy sëy ba ci ñoom Moussa Dioum Boy Kayre boo xoolee après loolu téye làmb ci 2006 mhm. ak tey du caaxaan. Mhm. yaakaar naa ne bientôt su euh, suma juumul jege na 18 euh, ans su ma juumul. 2006 mhm. wala 16 ans. côté boobu lay toll. kon nag loolu bu ñu dellu siwaatee tey andi ko xam nañu làmb soxla na ko. gars yi jàmbaar lañ. mais CLAF am na solo. Ah. ñu ànd nag poule boo xam ni quatre jeunes yoo xam ni kenn ki day war a tëngeej ñu koy woowee gàmmu gi yi. kooku lébu la bu tëngeej. li ma ci xaw a jaaxal nag mooy li siq Cap li ci ëpp lébu la waaye da ngay waa dem ba yaraax jël fa xale bu ñuy wax caatu yaraax moom it mu ngay jógee yaraax lébu la boo eggee yoof xale bi nga xam ne caatu yoof lañ koy wax muy espoir dëkk ci yoof ba tey ñu andi ko boo xoolee cercle la dafa rond nga jàllaat tuuti dem bawol jël fa xale bu ñuy wax tiin di espoir ci bawol di rakk ci tafaatin rek adresse la son papa daan na bëri aussi adresse la ñeent ñooñu la ñu boole ci benn tàkku bëgg leen boole ñu bëri ci seen biir muy trois combats li ci am solo nag wolof danaan par aayil par parloo aay ñëpp suñu njaboot lan nu ñaan yàlla ñëpp na ci jàmm parce que claf bi damay wax ne mbër muy dem ci sëriñ di ko ñaanal da nga ko naan ñaanal ñëpp am jàmm ndax bu kenn taxawee rek nga sooxee te ñoom ñëpp bëgg nañ kenn kii ga kii génn génn te ñu delloo seen xel ci li nekkoon 2006 du ñu jëloon jëloon claf bi ñoo dem de ñi après doon nañ ay champion loolu nag jiitlante la ñu génne leen bëgg leen yóbbu incha allah bëgg ko def ci début janvier jëm février. des na beneen poule. xale bi ñuy wax Doudou Sané. nga xam ni li mu def ci lutte simple lutte traditionnelle li mu ci def mi ngi fi waaye daje ku ñuy wax Sele Mbele nekkoon capitaine équipe nationale. foofu ba tey lutte pure. lutte traditionnelle dafay am. waaye mu daje xale bi nga xam ne dafay waree Thiès. Thiès dugguleet ñu bokk ci tournoi CLAF. moo di bokkoon na ci. kon delloo si nañ leen booy jaxaw di xale bi dëkk ci jaxaw ba tey pour wan la équilibre bi Gaston production di def féetewu ko fenn dañuy tas rek làmbat ku ci sa wërsëg nekk ñu jox la ñett ñooñu pare nañu waaye ki war a ànd ak ñoom moo ci des am na ku ñu ci waroon bokk waaye ku waroon bokk te yàlla def jàllul amul sens pour nga ne di waroon a bokk ki mu doon wërsëgam daal dañ leen complété moo xam suba la moo xam ginnaaw suba ki war a ñëw daal tamit doon wërsëgam xale yaa ngi seetaan ku ci pare te wóolu ci sa bopp bu dee sa place nga fa ñu jox la ko nga ñëw anticiper. mu doon mu tëju loolu da nga fi des. di gërëm aussi ndoo yi di féliciter Matar Ndiaye c'est un ami. du ay manager. mais ay nit bu leen yàlla boole ñu am lu ñu bokk bokk jikko moo yàlla boole maag moom damay am sax lu ma war a signé ni ko signéel sama place àgg nañ foofu loolu itam liggéey moo ko may te nit la koo xam lu mu la wax dëgg la te liggéey ak nit mu di la wax li ne ci moom mbër boo koy waxal sax nit ne ci mun la nit a ngi xool ci moom def ni def ni moom di gërëm ñëpp nag ménages yi ci yor mbër ñi ci war a bokk waaye daal lii gërëm gi gërëm gi yëpp ci tàmbali ak jeexal ko mooy di félicité waat Makan di wax ñu ngi koy ñaanal ñun en personne parce que li tax ñu koy ñaanal sunu papa ji yàlla def na wax dëgg yàlla mi ngi féexu baax waaye moom it jàmbaar la mi ngi jéem lu mu man asgor nag boo àndeek moom muy liggéey te nit mën tax boppam yow mi ko jege sañ nga ne diwa ngi def ci mi ngi ci nàngam mm-hmm. loolu bëgg ñu ñaanal ko waaye di gërëmaat sëñ Sidi Mbàkke moom sëñ Abdul Ahad ibnu sëñ Abdul ci màggal gi sëb sëriñ la teral la dalal la ci këram di gërëm ñëpp ñi nga xam ni seete woon leen ko mel ni maam jaara faam waaye Demba Ka sunu xarit di xaritu réew mi xam ne Sénégal a ko ñor moom it màggal na noog moom di ñaanal ñëpp jàmm waaye yéen di kontaan ci yéen lool daa Gaston Production daal loolu la bëgg li ci kanam des na lu bari lu ñu bëgg waaye yii daal lu Sénégal yi dañu laaj di ko xaar ci ñun ah mi ngoog nag nanu ñaanal rek ñaanal sama waa ji aussi makan mm. jërëjëf Lamine jaajëf